Mercedes GL 350 bi di ab 4x4 bu mucc ayib ma nga bàyyeekoo ca réewum Canada Baye Fall yi nga xam ne ñoo nekkee ci réew Canada ci njiital sëriñ maam Cheikh Fall moom Chérif Assane Fall ànd kook murid yi ñoo ko jëndal xalif général des Baye Fall sëriñ di Fall moom sëriñ Modou Mbenda di oto bu mucc ayib boo xam ni fépp fu sëriñ bi bëgg a dem ci biir réew mi oto bi dana fa mën a joti ñu indi woon ko nag ci Touba doon ko jébbal sëriñ bi ci altine ji dëppoo nag le 1er août 2022 bi ñu agsee ñu jaax ci sëriñ Saliou Fat Sow leeral ko lépp jëm ci jëf ji nga xam ne moom la ñuy jébbal xalif général des Baye Fall ginnaaw bi lañu ànd ak moom dem ca jannatul mahwa ca Baye Fall ga jébbal caabi oto bi xalif général des Baye Fall Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda boolewaale ci àddiya ju toll ci 3 millions de francs CFA. waaw ñoo ñëw ak daamar jooju nga leen digaloon nu wutal la ko oto bi egsi na caabi jaa nii <laughs> waaw caabi jaa nii waaw nee wucc na ayib lool. waaw lii mooy kayitu oto bi waaw lii mooy kayitu oto bi waaw waaw waaw lii mooy kayitu oto bi lii assurance bi la lii CMC bi la kayit yi la yóbbu nu man koo miite dal koy def ci turu bi nga xam ni lépp yemb na waaw waaw lii lii kayitu entretien bi la waaw maanaam maanaam maanaam ñiy saytu oto bi waaw yóbbu yóbbu nañ ko Elton waaw ñu saytu lépp wax ni lépp aw na aw yoon wàllu huile beeg ndox meeg boolem lu lu oto bi aajowoo ci biir rek seen nañ ko ba mu mel na mu war a mel loolu lépp nag ñoom it fay nañ lépp ba mu sotti waaw boole nañ ci nag. dix di ñaar lam ñett nga nañ ci ñetti million ñetti million yii waaw moom moom lañ santewaat sëriñ bi defaat ko addiye boole ko oto bi waaw waaw waaw ci ndigal li nga leen joxoon nu jëfe ko waaw seen seen xol da see sedd waaw nu am si tawféexu sëriñ bi waaw waaw indi nañ oto bi boole si ñetti millions yi addiya waaw waaw waaw <laughs> ànd ak sëriñ Saliou bu ko <laughs> santaane rek ñu man ko loolu daal lañuy sàkku ci nga ñaanal leen ba loo santaane rek ñu man koo def am nañ mbégte lool ci ndigal li nga leen jox ba ñu ba joxe ko nii nii nii nii nga ko bëggee nee nee nañ nag na sëriñ bi ñaanal rek ba lépp lu mu santaane na fekk ñu man ko rek ndax xol yu ko yu ko def moom mi ngi fi ak yéene yi ak bëgg gi ak pas li ci des nag mooy kàttan gi rek nga ñaanal leen ba kàttan gi mën a nekk ba loo soxla rek ñu mën la ko defal ci ci ci ci ci ci ci ci yéene ak bëgg ñoom ñii nag yàgg nañoo def lii ndax dañ ko daan indi di ko jaarale ci sëriñ Cheikh Jëmb waaye dañ ko daan jaarale si man ma jottali leen ko sëriñ bi nii it lañ ko daan defee waaw nii rek dañ ko daan defee daa daanañ indi it lim bu am solo di ko jox sëriñ bi mm, di ko jaarale ci man ma di ko yót sëriñ bi kon nag Fall li ci des mooy nga ñaanal leen rek ba seen yéene yi ñu yéene ci yow daal ñu mën ko yeggale ñu ngi sant nag bu baax a baax nee na itam <clears throat> doomam ji la bëgg moom mm, dala ko jébbal mu daal di joxe boppam joxe ay loxoom jébbalu mm, mu Touba bii waaw aci jógal loolu des ko waaj ak njébal des ko waaj jógal waaw waaw sëñ waaw day jébbalu waaw ñu ñu mat a ñaan la ñu mat leen a dimbali jàppale leen ndax lii kat yàgg nañ koo def te at mu jot la ñuy indi at ma cay tege dana ko ñaar ca loolu nag ak bëgg la ak pas-pas ak yéen liggéeyal sëriñ bi at mu jot de li ñu daan indi fii di ko yot sëriñ Cheikh jëmb te muy jaar ci man at mu jot la ñuy indi at ma ci topp ko yëpp loolu loolu nag ak bëgg la ak pas-pas bi bi bi fi sëñ Cheikh nekkatul it ñu randu si ci yow mii <coughs> di fa liggéeyal Cheikh Ibra loolu rek lañu fas yéene nga ñaanal leen rek ba ñu am kàttanu li nga bëgg foo foo leen ko joxe ndigal rek ñu def ko ak it di def loo xam ne nii dañ koy def ci seen yéene ak bëgg ba di ko di ko joyal si ci yow loolu la ñu waxoon ni bu ma ñëwee naa leen ko jottilil fii ci sa kanam ñu ngi nii nag Fall di taalibe nun ñëpp noo ngi nii da nga nu boole ñaanal rek ba li nga bëgg nu man ko waaw Fall jërëjëf Fall. xalif général des Baye Fall Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou mbenn bëgg na lool ci jëf ji nga xam ni Baye Fall yi nga xam ne ñoo nekkee ci réewum Canada ci njiital Serigne Maam Cheikh Fall jëfati nañ ko muy jëf joo xam ne dugguleet ndax saa su ne ñu ngi indi seen àddiya fii ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall di ko jébbal ki nga xam ne moom moo ko fi nekkal jëf ji nag kawe na lool ci sëriñ bi mu sant leen bu baax a baax gërëm leen daal di leen di ñaanal. Oh, de eh, sëriñ baa ngi sëriñ baa ngi nuyoo bu baax di eh, jaarale nuyoo bi sëriñ Saliou mii di rakkam def taalibeem eh, di di di jottali ay cant ak i ngërëm mu jëm si ñoom ñi nga xam ne ñooy ak njabootu boppam te jàppale ko te taxawu ko. waxtu geesoo gis leen ci wetam yaakaar naa yéen sori ngeen waaye mel na ni yéen a ngi fi ndax li fi xew lépp yéen a ngi ciy teg seen bët te loolu ngeen di gisit la ngeen gisut moo ko raw ndax sëñ bi bi mu toogee jataay bi ak léegi dara egsiwul ci kawam lépp ñoom ñii ñoo ko taxawu ñoo taawu lépp ba ndigal lu fi jaar rek jóge sëñ Tuubaa agsi si moom Euh, jëfe nañ ko ba sëriñ bi am si ndam la nga xam ne moom la sëñ bi doon sàkku waxtu ne bu nu demee si sëriñam ba di sëñ Muntaxa da ngeen di dégg muy seere ay cant ki ngërëm yoo xam ne waxtu ne da koy yeesal mu jëm si sëriñ bi ak njawatu Seera Faal gi loolu su mënee nekk dafa fekk la sëñ Muntaxa bëgg da ko am si kër Seex Ibra mooy ñëpp àndandoo nekk benn bopp am kilifa mu leen di digal di ànd ak ñoom si ndigal yi ñu di ko jëfe na ko sëriñ bi bëggee loolu nag lanu Seex Ibra Faal loolu it mooy jeexitalu liggéey bii nga xam ne tey jii moom ngeen indi di ko di ko di ko di ko jébbale si ndax loolu la ñu seere faal jàngale ndax eh, ab taalibe moom eh, murit dëgg ak muritub caaxaan amut li am mooy murit murit mooy ki joxe boppam nii ko sëñ Cheikh mii doon defe léegi sëñ Xaadim sëriñ Touba mii wax sëriñ bi ne ko jébbal naa la sama bopp àddina ak àllaaxira loo ma digal ma def ko loo ma tere ma bàyyi ko loolu moo si boole ku ne ku si bëgg a bokk waaye loolu ay wax rekk la lay tax mu doon dëgg mooy ba nu jógee ñu jëfe ko kon murit mooy ki nga xam ne ba mu waxee wax jooju bopp sëriñ bi nangul ko ko ba mu jógee daa tànkam si loolee nga xam ne moom la jox wax kàddu ya mu génnee wax ko sëriñ bi muy day daal di jox boppam sëriñ bi ba mu jeex tàkk te bu mu si desal dara te boo joxee sa bopp joxe sa jëmm joxe la sa aju te loola moom mooy doxinu murit te yemuñu si loola dañu dañuy joxe la nga xam ne moo gën a jege xolub murit xolub nit doomu aadama muy alal mooy sëriñ bi dafa tàggat murit yi ba dara feesul seen bët dara muurut seen bët ba li nga xam ne moo nuru lu gën a jege xolub doomu aadama muy alal sëñ bi da koo taqaleek murit yi ñu am taw féexuk man koo di ko jël di ko jox seenu sëriñ nga xam ni foofu rek la ñuy njariñ loolu yi nag moom ngeen jëfewaat tey jii sëriñ Saliou lii mu seere nun ñii am na luñ si luñ si xam ndax bi ngeen fi bàyyi koo yàggut indi fi addiye ju ju am solo joo xam ne ji eh, moo ëpp foofu addiye ja ngeen mujj joxe ndax loolu la am murit baaxoo mooy loo joxe tey bu ëllëgee dangay gis ni ak yokkute moom lay jur te bu juree yokk rek yow nga yokk kon doxin woowu ngeen dox moo moo moo feeñaat fii liggéey bii ngeen indi nag di ko jébbal sëriñ bi du liggéey bu ndaw de ndax dafa am lu ko taawu waxuma alal ji ko jënd loola kenn ku ne mën nga ko am waaye la nga xam ne moo taawu jëf ji muy pas-pas bi ak pasteef bi ak dëggu gi ngeen dëggu ak gëm gi ngeen gëm Seera Faal ak xam gi ngeen xam ne li ngeen am lépp dangeen ko war a jox sëriñ bi te suñ borom taw féexal leen ngeen xam ko loolee moo jar yéem moo tax jëf ji du lu tuuti kon yéen ñi nga xam ne yéen a ko jëf te ànd ko muriti kanadaa yene kanadaa yépp nag ak ñi ne fii sax te seen xol wala seen yéene àgg si suñ ko amoon def ko yéen ñëpp sëriñ baa ngi leen di sant ke bari na ñoo xam ne mënoon nañ ko ñoom kese kenn ku ne am na ñoo xam ne yàlla tawféexal ne nu man koo def ñoom kese waaye sëriñ bee bëggoon tawféex yoo xam ne ñëpp danañ tàbbi si biir ni ko Seera Faal jàngalee woon lu mu mës a santaane rek dañuy woo murit yëpp ñu daje barki démb sëriñ Muntaxa bi muy santaane liggéeyam bii daa woo murit yëpp na nit ñëpp daje ñi mën a jàng arxuraan ñi mën a jàng xasida ñi mën a tudd yàlla ñi mën a wérd kenn ku ne nekk si dara ndax loola mooy tawféex loolu la sëriñ bi bëggaloon murit yi moo tax mu sant leen ko waaye yéen ngeen am tew tawféexu àndandoo ko nag yéen ñëpp nag def si pastéef def si yitte jumat mat sëkk ndax ndigal li bi mu roteeg léegi yàggul te diggante Canada ak fii ak kenn ku ne xam na démarche yi si am loola yitte ak pastéef moo leen ko may aku ngëm yoon wi nag noonu rek la def li nga man nag Cheikh Ibra nee na ngóor a néewu si ki def li nga man yem si yaag ñëpp a yem waaye ngóor a mi ngi si def li nga mënut ndax moo wax ni da ngay tàmbali waaye mooy àggale ku ko defal man dina la defal loo mënut ku ko defal loo mënut dana defal loola jomb jëf ji ngeen jëf te yàlla tax nag ak jëmmi Cheikh Ibrahima Fall sëriñ bi nee na xolam sedd na si te loolu doo ngeen si doon wut moom it am na lim si doon wut bëgg na si xolom sedd na si te nangul na leen ko kon nu mën a am yàqin si ne li si sunu kanam it lépp day gën a baax rek day gën a nee nga santal leen mboolem murit yi fi nekk kanadaa ñi jàpp si liggéey bi ak ñi si am yéene jàpp te xam ne sëriñ bi ay jot na si liggéey bi te xolam sedd na si mu ngi leen di ñaanal tawféex yu ne gàññi li si jiitu nag mooy fan wu gudd ak wér ak xéewal yu ne gàññi yu nu mën a liggéeyale sëriñ bi. waa Canada yëpp sëriñ baa ngi leen di sant di leen gërëm waaw di leen wax nag sa kanam rek jëf jii daal na ngeen xam ne bu ñu doxee tuuti da ngeen xam jëfal sëriñ bi lu xolam sedd lu muy jariñ kon nag nañ fi dajawaat rek si yeneen jëf yu gën a rëy jërëjëf waaw waaw waaw incha allah waaw waaw. <laughs> waaw ginnaaw bi leen sëriñ bi ñaanalee mbokk taalibe yi nga xam ne ñoo indi woon oto bi fii ci Touba leeral nañ lépp loo xam ne moo jëm ci 4 kaat bi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ak sëriñ bi rawatina chauffeur yi leeral leen lépp loo xam ne dafa ànd ak oto bi ak lépp lu ci jëm ginnaaw bi la ci sëriñ bi dugg daal di koy dalloo.